sapeur yi nekk ci entrée campus sociale bu UGB dafay finde rek violence mi nga xam ne amoon na ci jàppante diggante takk der yi ak étudiants yi ci aljuma gi ñu weesu ci ay jàppante sax yoo xam ne Alpha Yoro Tunkara si la ñàkk bakkanam nekkoon ab étudiant ci troisième année ci géographie ci village bi la dëkkoon ci deuxième étage ci bâtiment bi li nous sommes au village Paix euh, notamment au niveau de la chambre 110 là où résidait Alpha depuis son arrivée ici à l'université Gaston Berger donc. Euh, ca biir chambre ba nag ay ñooñam ci tiis ak naxar lañ nekkee ñi di ay camarades de classe am ñeneen ñi di ay xaritam jege ko lool bokk na ci sax kii di ji di koox Sabali mi nga xam ne daal di nay dikk ci li mu jot waxtaan ci aljuma gi ak kii di Alpha Yoro Tunkara. bi muy génne ñëw na waxtaan ak man. laaj ma nan laa ko gisee ma encouragé ko waaye bu mu génnee dafa ñëwaat ci saas yi daal di ma laaj lu mu ma njëkkoon a laaj ma ni ko baay baay loolu laa mujjee waxtaan ak moom. c'était notre dernier parole quoi. ci veille bi ba tey xaritam bi bile daal na koy xamle ne yaayam mi nga xam ne ma nga fële sa di ndefelo ci gu manqué na ko lool te nag woo na ko waaye mujjewu ko jot. maa di doome quelle que soit la suite il va appeler sa maman. daf ma ni suba dinaa woo sama yaay. ndax namm naa ko su ma ko mënul gis itam bëgg naa. elle était elle était ko dégg ci laa ko laaj ndax woote na mu ne ma woote na wante jotu ko loolu moom ci gën a metti génne na àdduna te gisantewul ak yaayam. il est il est comment dire il est parti sans lalam nag moo nekk nii bagage am itam ñu rangé ko fii kii mu bokkaloon classe di seede ne nekkoon na ab étudiant bu brillant boo xam ne amoon na ab avenir. il faisait euh, la deuxième vague d'orientation donc il a moom ci deuxième vague orientation yi la bokkoon wante loolu terew ko valide année bi ak 60 crédit deuxième année bi itam naka noonu nekkoon na xarit bu ma jege woon. après la licence licence 2. donc moi j'étais mon ami proche. Alpha Yoro Tunkara nag ci aljuma gi weesu la daal di ñàkk bakkanam ca l'hôpital régional bu Saint-Louis fa nga xam ne foofu la ñu ko rawale woon gannaaw bi mu amee ay gaañu gaañu ca manifestation bi doon dox diggante étudiants yi ak takk der yi l'enquête nag baa ngi woy ngir ñu xam ana kan moo faat Alpha Yoro Tunkara waaye nag njaboot gi moom ba léegi ni jotuñu résultat autopsie.